dal leen ak jàmm mbokk internet yi lu bari ci xaadir yi dañoo jàpp ne waxtaankat bilee di Cerno Yunus Jong dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci tariqa xaadiriya ba waral mbooleem sëtub Seexuna Cheikh Mohammed Fadal yi dal di takk woote ab fatwa sëtu Seexuna Cheikh bu ak ki nga xamante ne mooy Seexuna Cheikh Mohammed Fadal daal daanaka jamono jii nii kontaan nañu dara dañoo am lu leen naqari te li ko waral mooy dañoo jàpp ne waxtaankat bi nga xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Cerno Yunus Jong ñenn ñi di ko melal ni nit koo xamante ne àndu takk xelam yépp su ne mu yëkkati ay wax yu tegginewul di ko tekk ci terub tarixa yi li xew ak na mu xewee ma nga xewee foofule ca TFM ca nañ koy defee saay su ne ñi di tarixa xadriya ci Sénégal ñoom la ñu dalaloon ngir ñu waxtaanee seen sëriñ ak sang bu tedd ba di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofule ca émission boobule di quartier général ci ay bés bi ñu weesu te ka fa ñëwoon ngir waxtaanee tarixa ba mu ngi wuyoo ci turu Serigne Mohamed Seck ngir mu fësal jaar jaaru sang nga xamante ne moom mooy Cheikhana Cheikh Sadbu doom ci Cheikhana Cheikh Mohamed Fadel Ben Manin kàddoom moom Serigne Mohamed Seck jot na xamle ne kii di Cheikh na Cheikh Sadbu shérif la bu sës rëkk ci suñu yonente Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam gën gaa leeral xamle na ni Cheikh na Cheikh Sadbu moom mooy fanweer ak juróom-ñaareelu sëtu sang bi di yonente bi na itam moom Cheikh na Cheikh Sadbu ma nga ñàkk yaayam laata bésu ngénteem bi mu ñëwee ci bàyyub góor gu sell gi nga xamante ne moom mooy Cheikh na Cheikh Mohamed Fadal nag moom Serigne Mohamed Seck wax na ni Cheikh Mohamed Fadal dund na ci lu toll juróom-ñaar fukk ak ci at yu toftal ñeenti weer ak ñaari fan waaye itam moom jotoon na am ci lu toll ci téeméeri ñu àndandoo déglu ko. lii la cheikh na cheikh Mouhamed Fadel Ibn Mamin am laataa mu koy am nag day jël téeméeri tur yàlla yi di ko tarbiya di ko tarbiya di ko tarbiya 99 tur yàlla yi di ko tarbiya ba yàlla may ko benn bu nekk doom. moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Ibn Mamin mu dund mu dund 74 ans mois 2 jours moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Ibn Mamin génn àddina ñëwaat ci àddina am centième doom. oustaz Pape am Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Mouhamed Fadel nii la def. dafa jur. 99 doom fii ci àddina. moom bàyyu Cheikh na Cheikh Saad bu. dee ba ci biir bàmmeel di génn àddina. di ñëwaat soxnaam di ànd moom ba jur téeméeri doom muy Cheikh na Abul Asan bu ñu nee Cheikh na Cheikh Saad bu nag. Mm-hmm. da ngay xam ni moom. Mm-hmm. ak Cheikh na Mouhamed Fadil. Mm-hmm. bokkuñu ci. mais mais Mouhamed loolu nag bëgg naa mu leer. dina leer nañ. <laughs> macha allah Cheikh na Cheikh na Mouhamed Fadal. kenn du moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin wallahi kenn du moom. Abul Anwar nga ne Abul Anwar. dama ne la am na téeméeri doom. 99 doom la am ci àddina dee ba am un an ci biir bàmmeel am centième doom. non da xaar xaar xaar denc nañ ko. denc nañ ko ci biir bàmmeel génn na àddina. moom Cheikh na Mouhamed Fadal. moom Cheikh na Mouhamed Fadal. mu génn ci bàmmeel. muy génn ci at bàmmeel bi guddi altine guddi àjjuma di ñëw ci soxnaam. allahu akbar. di ñëw di ànd ak soxnaam. soxnaam ni ko lii ngay def de neex na ma. waaye bu ma sañoon nga acquitté ma ndax waa xawdu gii nee nañ mhm. da nga xaar ba nga génn àddina may def lu bon te man duma def lu bon surtout Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam te bir na la ni yow lii ma ëmb yaa ma ko waaye naka ginnaaw kàddu yu sëriñ Mohamed Seck yooyu ci la jamkatu tarixa bi nga xamante ne mu ngi woyee ci turu Cerno Yunus Jong dal di posté ab vidéo ci page Facebook am di dal ci kaw waa kër xaadir yi dal di yëkkati ay kàddu yu doy waar jëmale ci ki nga xamante ne nii mooy Cheikhna Cheikh Mohamed Fadel yooyu le kàddu doy na waar doy waar goo xamante ne ñun ñi kàtt lot nañ ci ñëwaat doomu njaaloo ndax nit mën a jóge bàmmeel ñëw di jura ku dund néew du dëgg kon nag na ngeen wax lu am bopp moo gën ngeen wax lu amul bopp te lii wax jaa ngi banda baa ngi fii laajte yi mu ngi jóge rita tool mu ñëw fekk ma fii maa ngi denc banda bi ci la wax ji ne ñu bi noonu la juddoo kon nag bu fekkee noonu la juddoo ba tax na ñaari fukki fan ak juróom-ñaari weer bu nekk dana gis ñu bàyyi koo Sénégal bàyyi ko fale di dajale ay jigéen ak góor di dem foofu ci nim daat naan dañooy dem di ziar te ku fa mooy yàlla yàlla ku fa mooy yàlla jahannama nga jëm ku fa am doom e doom bi dana am barke c'est pas vrai ku fa am doom doomi njaaloo nget gaab ñu ngi foofu di jaay seen yëpp di njaaloo pour ñetti ñu ne yaay sëriñ bi noonu la amee woon doom ba am barkeel bi doom ba am barkeel doomee rek cëp billahi fayda weesuwul lii billahi lii ku ci dee safara la xanaa yéen du ngeen xelu xanaa yéen da ngeen judd ne gëléem nampa ci mbaam déet nit bu am xel dana dana gëm néew bu dee ñu suur la juróom-ñaari at ngay jël ci di ak jigéen yi di di fanaan ak ñoom bay biirale c'est pas vrai pas vrai bot lii ku ci bu mel nii kay dama koy sànni ci àllaaxira ko ziyaar ba àllaaxira xanaa da ci yooyu lee kàddu nag moo mujjee yëkkati xadaru ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy sëtub cheikh na cheikh mohammed fadal nekk dëgg-dëgg ay chérif yu bàyyeekoo ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fàttali ñaari sëtub ki nga xamante ne mooy cheikh na cheikh mohammed fadal ñu ngi ba tey ci kaw suuf ñu ngi fii di dund ak ñun kenn ci ñoom ñu koy duppee cheikh jéy ka des ñu koy duppee cheikh na ñoom ñaar ñi lee ñoo jàpp ne kàddu yi nga xamante ne moom la ki nga xamante ne nii di Cerno Yunus Jong yëkkati ay kàddu yu ñaaw la jëmale ci ñoom loolu tax ñu mer ba fa mer yem am ci yooyu le kàddu moom moo waral ki nga xamante ne nii moom mooy cheikh saadu wuldu jee ibnu cheikh mohammed lamine daal di gën def ab déclaration ngir lu kàddu yooyu waaye ànd ak loolu daal di woote ab fatwa euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, di naqartu bu baax di métitlu kàddu yi nga xam ni jib na fi jëm ci eh, sunu maam yu tedd yu mag yu baax yooyu eh, di di di di di wax ña ko jëf ñu ngi leen di wax ñun duñ leen tontu ci dara du leen wax rek salaaman salaaman nag su ma ko waxee mooy yàlla moo ne wa ibaadu rahmaan alladina alladina yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum jaahilun qaalu salaama mu sama jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi dox ci kaw suuf te bu leen euh, nit bu xamul wala ko xam ne ignorant la bu kàddu ay kàddum jëmale ci ñoom ñoom de dañuy wax salaaman dañuy woone rek woote jàmm euh, ci loolu ci li nuy nag du leen ci tontu pour di waxanteeg ñoom wala di jël ay kàddu wala ay di di ñuy wax ñuy wax loolu du am ndax ñin ko wax ñooñu ay nit yàlla yu màgg lan te yàlla mun na leen ko euh, fajal moo tax dañuy jël lépp lanu metti ak lanu naqari ak lépp ñu tegaat ko ci loxo yàlla ña waxi waxi ñu ngi leen di bay ak yàlla ak di leen bàyyi ak nit yu yàlla yu mag yooyu nga xam ni lu mel ni yelloowul ci ñoom ñoo nga xam ni ni dañ di sàkku ci ñoom barke di leen ziyaar di wax wax ju lu baax di ko jëmale ci ñoom ngir ndax lan ndax ñoom ay sët yonent la sallallahu alayhi wa sallam te yàlla moo leen laabal ba ñu set wecc moo leen dig ni dana laabal njabootu yonent yëpp kon sax kenn taqat ci ñoom daana ñaareel bi euh, sët yonent jaaduwul ci nit di àddu jëmale ci moom lu dul ci lu baax euh, assabu la yajuuzu fi ali nabii walaw xayaru wa baddalu ma fi madhabi euh, ŋàññ du ci yellu ci kenn mu jëm rek si njaboot yeneen si donte sax ñoom même bu ñu defoon loo xam ne dëppoo la diine kenn amul sañ-sañu euh, di ci di ci kàddu kenn warul sañ-sañ am kàddu jëm rek si njaboot yeneen si rafet bu baax. ñi ñi wax wax ji nag ah ñoom di xaw ma fu war a bokk ah bu dee ay juddatan juddit du jëf lu mel ni sa jëmale ko ci mbokk judditam. rawatina ak ay jullit waaye dama yaakaar ni ah ñoom dañoo xamul ñii nu yëkkati ñoom kàddu jëmale ci ñoom kooku mooy Cheikh Ahmed Wahid Lamine moom mooy xalifa rasulillahi ci kaw suuf Cheikh Sadou nekk njabootam nekk du ci yàlla bu mag boo xam ne ko fii ci Sénégal ci dem fi ci lu baax ci diine mu nekk kër goo xam ni danoo dañuy doonante rek wilaaya ak martaba ak jege yàlla moom mi ñi nga xam ne ñoo ji wax wax ji wala ko wax moom ah na xam ni de dugg na ci boppam ci du lëndëm dugg na ci boppam ci fitna àddina na xam ni mi ngi woot woona ci boppam na àddina ak àllaaxira jàmm bis ni bis bi mu waxee kàddu bi ci lay gëj a amee jàmm waxuma sax ñoom seen baatin waaye am na ñu jug ñoo xam ni daan jëflanteeg moom te mu mu ngi ni faa moom waaw ndax nit mun nga làqatu fu ne jëf say jëf say wax wala nga wax waaye na nga xam ni yaa ngi ni faa ñëpp xam nañ la xam nañ la bu baax te mënoo rëcc kenn itam loolu wàllu zaahir la am amma ñun ba nañ ci keneen di jot sax ci wàllu zaahir di jëf jëflanteeg moom yàlla ñoom daan jëf jëflanteeg moom ci du euh, seen martaba ndax martaba ak maqaama kenn du ko tooñ wax ma nag martaba nit yàlla bu mel ni Cheikh Ahmed bu mel ni Cheikh Sadou bu fekkee ni nag ñoom daanoon wax yu wax yu mel ni mu leen di jug mu leen di jig bii de du leen jig bii de te leen yi mujje ngaa ci wax yu mel nii waaw ndax uh, bir na ma ni ñoom daan tegoo loo xam ni duñ ko àddina bi sax du ko war mën a àttan waaye dana dal seen kaw bañ te dana ni fang itam ba ñëpp xam ni ñii ñoo jëf-jëf yi eh, ci la leen di dal ci ay musiba ak yàlla dana leen weer ba ñëpp xam ne ñii la xam ne nag yomb na ndax eh, am na ñu jota sax di wax ma ni ma eh, seen mbir leer na nañ waaw dëkk nañ yàlla ndax yàlla dafa wax ah képp ko xam ne noo noonoon nga noonoo nga ak sama benn wàddiyu na nga yëg ni dëkk nga ma geer yàllan yàlla Musa nag ci ku xam ne eh, dëkk nga yàlla geer waaw ñoom day man day dama am sax yërmande ci ñoom ndax xam naa ni ki wax wax ci moom ndax xam ni àddinaam dootul neex te àllaaxiraam dana metti lool waaw loolu te loolu du jaas ala kulli xaal tax sët xam ne jël nga ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci moom eh, loolu yéen wax na sax ku jëf jëf ju mel noonu da ngay di génn ci lislaam boo dee waroon lu julli kenn warul denc wala denc julli ci eh, te Cheikh Ahmed de wax dara ci te yàlla wanu la ko ba ñëpp xam ne wan na la mm-hmm. am na benn at yàggul benn ñaari nit romb bu yàggul dara kenn ki ni ko nan dem ziyaara nitu yàlla bi mu ne ko kii du nitu yàlla daal di jël xeer toj vitrinu xabru bi fu mu ko defee ci saa si da ko suuf wan boo demee ñiy dem xaw daan leen wax ni fii da ko suuf si wan ne ba ñëpp gis ko yàlla dugal suuf wan na ko ba tey ki wax wax jii nag bir ma ni lu raw loolu ko dal wallahi maa ngi koy loolu amu ci benn sikk ah ndax moom sax li mu weddi loolu moom yoonam mën na ci bañ a nekk moom ki doon wax ci télé bi dëgg la di mu nekk ci Cheikh Ahmadou Fadel loolu am na Cheikh Ahmadou Fadel eh, génn na àddina dellu ci këram ba yàlla may ko njaboot leen eh, rek waroon na nag gën a wax bayit bi rek ndax Cheikh Saadu mënu ko leeral moo ne yaa munkira bibna cheikhana baadal mamaati mhm. tanassabta lil xalaaqi ilahi ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wa in ramaha fi lxalqi asrau min barqin mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi wedd sunu doomu sëriñ bi nga xam ne yàlla may na ko ko gannaaw bi mu génnee àddina ba pare mu boo ko weddee rek mooy yaa ngi woo yàlla ci tële doomu aadama mhm. loolu doomu aadama moo ko munul defal doomu aadama waaye yàlla mën na ko defal nit mhm. mun yàlla bu namee dara da ko naan kun fayakun rawatina bu waree sàkk nag dara mu ni loolu mooy moo moo moo gën a gaaw melax mm-hmm. loolu chance ba te ñun wax chance moo moom nag mu gëm ko mu weddi ko loolu ñun suñu yoon nekku ci duñ ko tontu ci sam si dara ndax moom jaraloon ñu ñu ñu koy wax lu lu bon wala lu metti déedéet yëpp di ko bàyyi ak yàlla waaw koo bàyyeeg yàlla nag wàccoo nga ak moom ñu koy bàyyeeg yàlla te yàlla euh, lu mu jëflanteeg moom rek moo xam ne moom moom moom loolu la mérité delluwaat nag di woo euh, sama mbokk yëpp waa kër Cheikh di woo taalibe yi maa ngi leen di woo ci dal fi euh, kenn nekk di tontante ci ay vidéo wala di xasante di wax dara loolu jaru ko moom la la la la la Abdul Mutalib waxoon Abraha al ashram rek bi ñëwee di si màkk bi E, daal di jël ay gileemam abrahata bi mu ñëwee e, abdumata bi ñëwee e, dafa ñëw pour jël gileem ma ni ko man de dama defoon ni da ngay ñëw pour nga attaqué si ma wala nga wax ak man ci wàllu kaaba gi mu ne ko kaaba gi kaaba gi duma ci ndax am na buur bu koy bu koy sàmmal boppam mhm. inna lil bayti rabban yuhmihi inna lil bayti waaw mu ko kaaba gi am na am na am na boromam bu koy aar ñu ne loolu doonu bir ni Cheikh Ahmed moom yàlla moom moo nitu yàlla la euh, wàllu yàlla la gawsu la sët yonente la ku wax jëmale ci moom yàlla moom euh, mi ngi mi ngi fi mi ngi fi dara ump ko loolu yàlla dana ko dana dana ko fayul dana ko ko fajal kon ñun luñ ciy def rek mooy mooy mooy woone ci ci jàmm ak salaam bañ ci euh, nekk di waxanteeg ñoom wax waaw Euh, kii ñu ko ñu ñu waxal yàlla daneen ko fayal euh, yàlla dana ñu wax wax ji yàlla dina duma duma yu leer nañ fii ci àddina ak ci la allah gannaaw loolu maa ngi doon delloo rek di baamtu loolu wow nit ñi bu baax taalibe yi ak wakkat seen yëpp di leen woti jàmm loolu euh, ñun ñëpp ñu ngi metti du nag lépp waaye lépp tam ñu ngi koy delloowaat ci yàlla rek ñoom daal nañu benn bàyyi nañ leen ak yàlla te duñ leen tontu te dara waaye ñun beneen ñu sunu xol dana sedd bu baax yàlla dana nu eh, fajal nu sunu mer ak sunu naqari ñu ngi delluwaat di leen ñaanal yàlla yàlla may nu sunu jaamu yàlla yi def yépp ci koor gi yàlla musal nu musal àddina bi yëpp ci feebar bi yàlla jële ko fi ci jàmm ci daraje yonent bi ci barke Cheikhna Cheikh Ahmadou Fadel Mamin ak njabootam yu sedd yu tedd yooyu jërëjëf maa ngi leen di wax jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla may ñu may leen xolu muñ ci daraje yonent